Abdoulaye Mamadou Guissé maa ngi lay nuyu oui Ndeye Comba ñu nga jiite parti bi di Fulla ak Fayda jiite aussi OMART nekk kuréel goo xam ne dafa yëngatu ci wàllum cosaan ak aada maanaam culture tey jii ñu lay laaj naka nga gisee arrestation yu bari yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku yi si mujjee am ci nguuru jomaay gi gis nga kaawu aadama Gaye ak kile di Moustapha Diakhaté Samuel Sarr aussi naka nga gisee mbir mi. waa jërëjëf euh, Ndeye Comba man li may wax rek mooy boo seetloo d'abord jamono ji yëpp dama nekk ci côté OMART Sénégal ONG bi nga xam ne ci aada ak cosaan ak développement lay liggéey pour lu lu tax loolu parce que tamit euh, dama toog ay at nekk ci politique bi euh, OMART war a dund war a dox am ay programme yi may xaar ba ci programme bi ñuy wax OMART City Sénégal nga xam ne tey euh, dafa yëngal jamono Euh, ndax sénégal yi dañ ko bëgg dañ moom la doon xaar looloo tax ma ma euh, politique bi ma xawoon ci raar. léegi nag par rapport ak question yi nga wax ni man li ma gis d'abord mooy damay damay sukkandiku ci euh, conférence de presse bi président de la république Bassirou Diomaye Diakhar defoon barki démb yàggul muy woote jàmm muy woote Sénégal yi nañu dajaloo xam ne ñi ko voteel ak ñi ko voteel yëpp dañu war a booloo pour defar Sénégal loolu nag man ma naw ko ci parce que moom dafa dama dégg mu ne politikul dama bëgg luy jëmale réew mi kanam loolu tamit ma naw ko ci ma gis ko tamit mu ne na Sénégal nekk ci jàmm loolu tamit ma naw ko ci ma gis ne bëgg na liggéey bëgg na def rupture te mu ngi apporter ay rupture parce que président bu toog ne ne ma c'est la première fois ma dégg ko man donc ma ko ci félicité loolu nag bu amee defe naa ñi nekk ci suuf ci moom régime am dañoo war a bàyyi ñi nit ñi jàpp di leen tëj ndax loolu bokkul ci démocratie bokkul ci rupture liñ doon dañ démb ci nguuru Macky Sall Abdou Diouf ak Ablaye Wade tey buñ ko gisaatee ci nguur gi loolu day ñaaw ndax nit politique du fayonte politique boo xasee ba gagné da ngay am sa vision am sa fi ngay jaarale réew pour mu progresser pour mu jëm ci kaw donc ma xam ne président santaane wul loolu moom mi woote juboo nekk benn ndax Sénégal yëpp la servir man je pense que ñi jàpp nit ñi di leen tëj di leen bàyyi ndax munoo tëj nit téeméeri at loo ko tëj tëj da nga koo ubbi ndax war nañu gis ne jomaay kaso la jóge jëm nekk président kon nañu def ndànk ci tëjaate yi te dama defe naa ne bu dee wax rek la Sénégal amul lu luñ fi waxul bu dee ku wax ñu tëj la safaan Sénégal amul luñ fi waxul fii loo lu nit dégg nañ ko dégg nañ ko fi mais pourtant ñi jiite woon réew mi dañ leen dañ leen doon ne lu tax bu nit waxee ñu leen ñu koy jàpp wala du koy tëj donc tey ñun aussi war nañu am approche boobu war nañu am niveau de grandeur boobu vision bi président de la République am ñu topp ko ci mais dama gis ne topp ñu ko nag waa te d'autorité maanaam pouvoir bu amul doole nguur gu amul doole man loolu laa gis actuellement parce que bu ñu toppoon discours am rek tey force de l'ordre rek yow yëpp du ñu du ñu du ñu du ñu dem kenn di ko jàpp. Mm. parce que président wax na li muy wax. donc nit ku wax nit koo xam ne dafa am alalam nga bëgg ko ci topp wala am problème ak nit nga bëgg ci dugal sa loxo téye ko loolu defe naa du yëfu démocratie. d' accord Abdoulaye Mamadou Guissé ñu gis ni euh, yaa ngi wax ni da ngay envoyé citation directe taskatu xabaar bi di Babacar Touré bu Kewoulo lan la def exactement ba nga koy envoyé citation directe waa Babacar Touré d' abord damay rappeler ne moom goro la woon ci man ndax sama jabar bi ma amoon moom frère la cousin am la xamu frère la mais gis naa ni tamit euh, moom day jàpp ay wax di ko jëmale ci ay personnalité day taal chaîne YouTube am rek di wax lu ko neex parce que même bi ma defee communiqué bii ñu bëri lañ ne ma kii la jarul topp parce que kii moom ñii euh, la dëkke man nag bu mu duggee ci man ma ne ko nag laal nga laalaake parce que man dama gëm sama justice yoon dafa wax ci Omar City ne man damay laaj ay nit xaalis di ko lekk te Omar City d'abord maa ngi nii yore jàkkaarloog procès verbal bu bu cabinet euh, maître René Paul Mankou maîtrise en sciences juridiques huissier de justice Ouest Foire aéroport angle VDN lu mot quatorze assemblée générale yoo xam ne ba ci CICES plus de trois mille personnes Omar City taxaw ne laajul kenn dërëm moom nee na ñun dañuy laaj man damay laaj xaalis léegi nag moom moo war a dem ci procureur mu mu leeral wala mu joxe preuve man dafa am ñu ma jox mu wax diw jox na ma loolu moom moom mooy apporter preuve yooyu man nag je ne me man du man du ma man du ma commune bëree ba pare su ak fayda la am te dama gëm nag justice ndax man su ma jaaxlee ci justice laa ndax nit amul lu ñu justice réewam donc Babacar Touré porte naa ko plainte am na tamit ku ñu porté plainte saaliwu xel koom nekk Touba euh, ñu dem di ziare sëriñ bi muy muy laaj xaalis pour couvrir ko ci euh, TikTok. mais mm-hmm. nañ ko dox marché bi marché euh, publicité di yore di def promotion Omar City. Mm-hmm. man dox ma ci loolu. ma ne ko Omar City mooy def boroom pour publicité ndax population bi ñoo bëgg programme bi ma yeewu rek gis nekk ci internet bi di ma méngaleeg abu amir abo te man xaw ma amir abo xaw ma gujaabi Atepa man ñooñu musuma teq ak ñoom dara xaw ma leen xamaatunu leen mais damay porter plainte man képp ku ma ku ma tuumaal ma porter la plainte parce que réew mi looloo fi ne mm. léegi nag maa ngi samay document huissier de justice assemblée générale yi ma dem yëpp dañ ko validé mais Ablaye moom huissier bi moo bindal boppam ne président Omar ak ñi mu àndal laaj ñu kenn dërëm mu ngi nii léegi nag groupement de femmes yi nga xam ne ak GIE yi nga xam ne ñooy organiser seen manifestation di def seen cotisation interne mais man loolu lu sama yoon Omar est équidistant de la gestion des associations mouvements et des associations seen gestion interne ñun suñu yoon newu ci donc loolu moo waral ma porte plainte euh, euh, Boubacar Touré Boubacar Touré Kéwoulo oui. Kéwoulo voilà. léegi aussi euh, en tant que acteur culturel tey jii Abdoulaye Mamadou Guissé euh, lan ngay xaar si président Diomaye Diakhar fay si seen secteur bi parce que bari na ay jafe-jafe. waaw ouais, mais mais man ñun suñu secteur bi d' abord na xam nga tey copie privée voté nañ ko mais loolu taxul coono yi dañ ndax copie privée buy dox day fekk SODAV dox SODAV doxul SODAV amul benn mécanisme boo xam ne day aider acteurs culturels donc SODAV doxul tey muy bindkat bi woykat bi fecckat bi kenn dundul sa aar Sénégal nañu waxante dëgg léegi ñoom ñëpp ay activistes lañ nekk ci TikTok bi lañ nekk di wut xaalis euh, donc tey boo xoolee sax ñu mel ni Cheikh Ndigal loo wala ñoom ñooñu day ñooy dem Europe ci seen euh, seen connaissance yi di jouer mm-hmm. mais Sénégal fii boo fi bu dee bëccëg mënoo fi am dara donc il faut que ñu bàyyi culture bi nga xam ne dañ ko jox ay nit yu am tur nit ñi am tur ñi loolu du culture tey boo demee France dem États-Unis dem Canada culture ay mécanisme ngay teg mécanisme yooyu nag ñooy tax nit fu mu nekk di dund ci culture bi mais Sénégal se le contraire et defoon naa régime bu bees bi da koy dindi mais gis naa régime bu bees bi changé wul dara ci loolu ñu fi nekk la fi na fi bàyyi tey lu mel ni SODAV yu mel ni yooyu ñun waruñu waruñu waruñu bàyyi même système bi di fonctionner parce que parce que système bi non seulement leerul crédibleul mais mais man je pense que euh, dañoo war a plus def ay rénovation am ay mécanismes yu bees te loolu il faut ñu woo acteurs yi ñu def genre euh, assise national président de la ñu jiite ko def ay commission ñu mu jur loo xam ne ëllëg da nga xam ne lii buñ ko appliqué mu baax donc man loolu laa amoon damay wax ci côté culture di wax Diomaye le président de la République hmm. il faut que mu def rupture de la gestion des affaires culturelles de ce pays depuis des années ba léegi li fa amoon mo fi am ñi fi newoon ñoo Hmm. bala yàgg daal daañu installé député yu assemblée bu bees bi en tant que sénégalais lan ngay xaar ci assemblée boobule parce que Pastef am na majorité njiit bi Ousmane Sonko doon wax sénégalais yi nañ ko jox majorité euh, daana taxawal li ñuy wax haute cour de justice euh, abroger la loi d'amnistie mais aussi ñu koy xaar ci wàllum criminalisation de l'homosexualité mbir yooyu loo ci xalaat. Ah, li ma ci xalaat dafa simple man. li muy mooy bi ñu bëggee assemblée de rupture mooy li amoon ci jamonoy Macky Sall bu mu amati li amoon jamonoy Abdou Diouf amati jël assemblée def ko euh, bërëbu tànn béer bërëbu sabar tout assemblée dafa sacré donc loi yi ñu voté aussi en tant que sénégalais nga xam ne quatre vingt dix pour cent yëpp ay musulmans la ñu dix pour cent ay catholiques ñi nga xam ne même ñoom dañoo condamné homosexualité tey homosexualité ñu criminaliser ko il faut que ñu vote loi bu njëkk criminaliser l'homosexualité ndax loolu moo tax démb ma dem kër Abdou Latif Gueye Jamra pour OMAT ak Jamra signer convention pour que nguur gi fi ne sàmm sàmm jikko yi sàmm suñuy valeur culturelle sàmm suñu diine te loolu pour mu am il faut que homosexualité ñu criminaliser ko démb maam Abdoulaye Diouf Guèye Jamra euh, maam Matar Guèye Jamra recevoir na ma ma sama délégation ñu waxtaan ci loolu ñu fas yéene signé accord liggéey ci loolu donc li ci des nag day day day ñëw parce que man je pense que suñu fexee ba assemblée bi voté loolu li ci topp du am benn problème maanaam day suivre ndax yàlla da ñaan day am ci ci ci liggéey bi mais homosexualité moom tant que ñu ngi koy daganal Sénégal wala ñu ngi def apologie ah di bu ñu waxee homosexuel dañuy est-ce que wala naan euh, lu baax la wala tant tànk ñu ngi koy wax réew mi day dem ci day dellu ci ginnaaw. Mm-hmm. donc man jullit laa dama gëm jullit moo tax dama gëm euh, sama giine moo tax ma bind livre sëñ Mountakha Bachir tuddee ko al Mountakha Bachir l'apôtre du silence euh, borom noppi bi borom mbég mi di wax ne tant que demuñ ci démarche yu mel noonu di préciser aussi que ne. almuntaxa Bachir bi dama koy dédicace damay def dédicace le trente samedi bi Masalikal naan jàkkaar synthèse la siège synthèse jàkkaarloog Masalikal naan donc di leen ci invité yéen média di wax ne tant que jëluñu Sénégal teg ko foofu euh, di sàmm mbaax ah, di respecté suñu guide religieux di topp suñu diine euh, di def li sëñ Tuubaa wax euh, ci man la bul ci tuffatul maanaam mag ñi yërëm xale yi xaram yi wekk mag man je pense que tant loolu amul mënuñu am programme bu développer Sénégal mhm. donc man loolu laa gis dernière question moom mooy euh, situation économique euh, bu metti bi nga xam ne actuellement Sénégal mi ngi koy traversé euh, yëg ko ñoom si seen bopp lan nga si mën a wax Abdoulaye Mamadou Guissé waaw situation bi nag Ndeye euh, Comba dafa tombé euh, ci jël nguur gi xëy na préparé wul woon jël nguur bi ndax kaso la jóge dem palais prison la jóge dem pale loolu moo tax sànq ma ne nañ def attention ñu ñuy jàpp di tëj ndax loolu mandarga fin wu régime la te jomaay yéenewuma ko loolu parce que tout simplement situation dëkk bi bi ñi toog régime bi toog ànd ñëwul ak programme parce que projet boo ko yoree soo egg yoree réew programme lay nekk avec ay date ay bés yoo xam ne li nga bëgg a def nga def ko si mais tey boo xoolee li ñu fi fekk ci li liggéey ñoom ci vision bi fi bi ñu fi fekk programme bi ñu fi fekk ci li liggéey donc Sénégal deux mille cinquante bi defe naa warul nekk programme boo xam ne jàpp nit di tëj la donc dafa war a nekk loo xam ne day ab day indi ay réponse ci coono askan bi ndax askan bi lu tax ñu jëlee fi Macky du du Macky liggéeyul de mais dañ fi jëlee Macky parce que ñoom lekk lekkatuñ ba suur naanatuñu fajuwuñu seen yaakaar tas mais bu dee ay pont ay infrastructure Macky Sall def na ko tey jii pouvoir bi leen rek war a ñëw yombal dund bi yombal faju bi jàng école bi yombal ko ba may Sénégal yi liberté ñu liggéey pour promouvoir la démocratie yóbbu ko fi ko Abdou Diouf yóbbul yóbbu ko fi ko yóbbul yóbbu ko fi ko Macky Sall yóbbul tey lool rek mooy tax sénégalais yi dund gi sénégalais yi nekk ci jàmm mais difficulté yi sénégalais yi di dajale du lenn lu tax sénégalais yi ñu naan sénégalais yi dañoo sonn mooy ñun dañoo am homme politique yoo xam ne dañuy dem ba jël nguur continuer di politique politique nag dafa am waxtu parce que le temps de la politique n'est pas le temps de l'économie donc politique boo koy def dafa am waxtu loolu moo tax ñuy wax campagne électorale su jeexee war na jeex li xale yi naan bu jeexee jeex na nga dajale Sénégalais yépp ñu bokk gis-gis bokk fi jëm tabax réew mi looloo tax Omar City Sénégal ñëw ñëw nekk un programme de deux cent cinquante mille logements entièrement avec un financement entièrement acquis laajuñu Sénégalais dërëm loolu mooy Omar City Sénégal mais nag am na ñoo xam ne bëgguñu alléger souffrance sénégalais yi lu ñu gis luy jàppale nguur gi fi ne ñu xeex ko dañu jaloux bëgguñu sénégalais bu nekk ci kaw sénégalais yëpp gàddaay nañu dem man duma gàddaay du mu dem fenn fii laay toog liggéey te programme bi ma yore damay ñaan yàlla mu servir sénégalais yi ba souffrance sénégalais yi ñu wàññeeku loolu moo tax ñuy indi Omar City donc loolu laay wax ne aussi pourquoi situation bi difficile mooy il faut ñu libérer les énergies libérer les initiatives ñuy libérer les créations les créativités pour nit ñi ku nekk li nga mun nga indi ko mais bu dee lu waay yëkkati ñu ne tegal mais réew mi dox la. Hmm. ndey ko ba. merci euh, ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. merci jërëjëf may fàttali ni Abdoulaye Mamadou Guissé yaa jiite parti politique bi di Fula ak Fayda jiite aussi Omart jërëjëf.